mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Rewmi FM daleen ak jàmm ci seen émission démb ak tay ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi tey nag ni ngeen ko déggee dañuy dellusiwaat ci xew-xew bu fi amoon atum 2011 ñu doon ko fàttaliku barki démb euh, mu di 23 euh, juin euh, ñu ciy dalal nag koo xam ni bis boobu bis bu ko marqué la muy le ministre Farba Senghor ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre am dalal la ci démb ak maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay itam di nuyu ñi nga xam ne ñooñu déglu ci biir réew ci bitim réew. alors monsieur le ministre ni ma ko waxee 23 juin bés la euh, bu am euh, lu mu tekki ci yow ndax keroog ca manifestation ya bokk nga ci ñi ci loru ndax yaa ngi nekkoon jamono jooju ak président Abdoulaye Wade ci nguur gi ñu lakkoon sa kër euh, gi dendee woon ak assemblée nationale est-ce que mën nga dellusiwaat ci bis boobu ak ni nga ko woon bala ñuy ñëw ci li ko jiitu. waaw bés boobu moom ku nekk xam na ne bés boobu li ñuy wax violence yàq keroog dafa. Euh, dafa dafa gagné li ñuy wax démocratie ndax président Ablaye Wade ñaar fukki fan ak ñaar kon mooy benn bi ko woon man daf ma woowoon mu ne maa bëgg nga dem ci ministre de l'intérieur Ousmane Ngom nga wax ne ko d'accord naa pour que ni ñi manifester waaye na opposition bi ñëw ñu taxawee côté bii ñi nga xam ne tam ñooy pouvoir bi ñu taxawee benn côté mu jox ma ah, benn croquis man la yónni woon mu jox ma benn croquis woo booru ay 10 heures yooyu mu ne ma demal seeti ko ma dem ministère ba euh, dem fekk euh, maître Ousmane Ngom ma ne ko président moo la jox croquis bi neena na daal euh, na fexe ba jël disposition ba ñaari parti yi su ko defee ñoom ñëpp kenn ku nekk nga am côté booy taxawee ba du ñu jaxasoo léegi itam mu jox instruction yooyu ñoom responsable yu mag yëpp mu ne leen su subaa na ñëpp dem su ngeen demee yéen tam ngeen défendre position bi nga xam ne moom la position état bi yore donc loolu la woon waaye yàlla def nag bi ñu demee loolu amul mu am ay débordement ay manifestation ñu lakk euh, ay biens publics ak privés yu bëri lakkal nañ ngi sax assemblée ci benn partie bi après man ñu lakk sama kër boobu li ci biir yëpp dañ ko lakk ba mu jeex ak mariste aussi kër ba fa nekk tam ñu lakk la fa nekkoon. boobu yow yaa ngi woon ca kër ga. man maa ngi woon ci biir kër gi. waaw parce que man xam nga ci suba gi bu ma xëyee euh, damaa toog ba euh, booru ay dix heures yooyu ni ngi di ñëw di ñëw di ñëw après euh, Amadou Kan Diallo ñëw ne ma kaa ñu dem assemblée su ko defee ñu seet exactement lan moo xew ci biir ndax sama kër dafa contigu taqaloo woon ak assemblée ñun bi ñuy génn sax man dafa woon naa ne comme li ko président waxee woon kenn ku nekk yaa ngi taxaw sa place. mais malheureusement fekk waa kii fekk waa PDS yi ñëwuñu euh, ndax euh, ki nga xam ne moo moo yore woon euh, mobilisation wu Pape Diop yàlla ko yàlla réew muy taaye Samb ñëw na ba si man moom itam pour wanoon ma ne ma ñi nga xam ne ñoom lañ waxoon ni ñu ñëw moom mi ngi nekk di leen superviser Alioune ñaa itam mi nga xam ne moom la Mamadou Seck Mamadou Seck bi nekkoon président assemblée nationale aussi yebaloon moom te mu waroon a mobiliser waa Pikine moom aussi wax ma la même chose ndax boobu président Pape Diop moo nekkoon euh, président du Sénat. ci loolu la ñu génnee dëkk bi yow yaa yoroon propagande jamono jooju. maa yoroon propagande ak organisation ak yooyu yëpp. mobilisation ak mobilisation ñun bi ñu génnee rek ñu dugg ci biir ni ñi ndeke yëpp opposition la. Hmm. bi ñu jaaree seen diir gars yi di kaas fii ñii di yuuxu fii. boobu yow ana seen nit la tax ñëwuñu te yow yaa yoroon propagande ak mobilisation. waaw ni ñi boobu boobu man maa ngi woon ci biir nekkee gaa yi di leen repousser ñoom seen bopp ñu daal di dem bàyyi foofu yëpp. ah opposition bi ñoo leen repousser. gars yi ñëwee ah, dañ leen a repousser au lieu que ñoom toog et puis bëriwuñu parce que nekkee dafa am lu woon ci biir loo xam ne man xaw ma ko woon. mooy la ndax dama déggoon ñu ne ñoom ci li ma jàppoon daal ñi àndoon ak ñoom ay Pape Diop dafa am suspicion à l'intérieur du PDS. dafa mel ni ñi nga xam ne dañoo àndoon ak Pape Diop dañu xe Pape Diop dafa xalaat ne. Euh, su loi bi jàllee ki nga xam ne mooy ne colistier bi mun na nekk Mamadou Seck mi nekkoon président assemblée nationale. ñi nekkoon ànd nag Mamadou Seck dam xalaat ne colistier bi su jàllee. donc mën na nekk Pape Diop. ce qui fait ñooñ kenn ku nekk da nga téye sa ay nit. pour bañ tam affaire bi jàll mais munoo ko. manifester yow kële nga defaral te xamoo ko. fekk dañ doon bañ liggéeyal keneen daal. waaw ku nekk yaa ngi bañ liggéeyal sa morom mais man loolu xama ci woon dara. d'accord. man gis naa seen représentant yi rek kenn ku nekk ñëw ne ma sa ay nit ñëw nga donc may man xamu woon exactement loolu mu ngi si biir parce que affaire bi euh, ñoom ñëpp kenn kenn leerutoon kan la président bugg a àndal. laa doon bëgg a wax kon yeen ba ba ba jooja euh, jamono xamu leen woon kan la bëgg war a doon vice président bi. déedéet vice président bi kenn xamu ko woon kan moo ko war a doon. ah oui moom kenn xamu ko woon. d'accord am na ñoo xam ne yaakaar ne Karim lañ koy teg. a ñu am na ñoo xam ne dañu yaakaaroon ne Mamadou Seck la. am na ñoo xam ne dañuy yaakaaroon ne Pape Diop kenn ku nekk yaa ngi ànd sa yaakaar. yow loo ci xam Karim la woon le président bëggoon def. non man président waxu ci woon ak man ci loolu. vraiment entre nous man waxu waxu ci woon man parce que man ndax moo ko ne ma noo far bu moment bi egg seegul. pour wax la waa peut être man sax euh, moom dafa li mu doon gën di waxtaanal mooy waa assemblée nationale ñoom euh, Babacar Gaye euh, ki yoroon affaire loi yi. je crois maître Babou ñoom. commission des lois yi ñu ko yoroon nag ak ñoom euh, président groupe parlementaire yeeg ñoom Dourwad ak ñooñu lay gën a waxal ak gars bi ak ñoom Mamadou Seck ak ñooñu. ñoom la gënoon a waxal. ñoom ñi nga xam ne ñi ngi nekkoon assemblée nationale ci loolu man affaire mobilisation. mais ñu bëri nag dañ ko jàppee woon dévolution monarchique ñëpp ne woon nañ. Karim Wade la man génnoon naa boobu. Mm. depuis 2008 xam nga ci gouvernement bi. waaw donc man affaire bi rek. man mobilisation propagande loolu rek nga géré woon propagande ma géré président am yoo xam ne dafa may laaj sama xalaat ma ñëw mu ñu waxtaan ci waxtaan ak ñoom donc loolu moo doon problème bi léegi nag bi gars yi ñëwee lakk sama kër yi moo wax li ma si jàpp mooy ab comme Abdoulaye dafa waxoon ne nañ def manifestation pacifique euh, kenn ku nekk ñëw man dama jàpp ne loolu démocratie la woon mais le fait ñoom ñu ñëw xam ne loolu suñ ci yemee peut-être que am la ñu bëgg ñu daal di commencer di lakk euh, kër yi lakk Euh, kii sémaphore yi mooy kii euh, feu feu yi ñu commencé ah di ko di di ko yàq ak yooyu dem tam assemblée nationale fële am nañ fa benn foo xam ne ci euh, ci ci boulevard bi am nañ fa foo xam ne foofu général fële seen kii nekk hôtel li député bi gars yi dem di attaqué yooyu yëpp ba ñëw attaqué sama donc dama yaakaar ne kon léegi démocratie violence bi moo ko naxasal te loolu conséquence bi muy am mooy après man ma ku fi ñëwaat da ngay jàpp ne gouvernement lu mu yëkkati violence a koy arrêté. Ah, loolu sax moo law ba tey. loolu moo law nii ba tey loolu moo indi itam moo gën a yokk li fi xewoon ak Sonko donc premier enseignement bu ma ciy tiré boo xam ne baaxul ci réew mi baaxul ci démocratie mooy ñoom niñ fi jëlee woon Abdoulaye Wade indi arreté la doon xew assemblée keneen ku fi man di ñëw ëllëg ci loolu lay nekk loolu mooy premier enseignement. deuxième enseignement bi mooy ñooñ bi ñu yàqee sama alal yëpp amul benn suite man porté naa plainte auprès du procureur de la République maître Ousmane Seye moom mooy sama avocat moom moo déposé plainte bi ak yooyu yëpp mais donc ñi nga xam ne ñoo def saccage yi ñoo def ñaawteef gi ñoo yàq-yàq yi les nos bourreaux personne ne les a inquiétés amul enquête amul enquête kenn pour poursuivre leen kenn defu leen dara. te boobu yéen yéen a yéen a ngi woon au pouvoir. non xam nga comme li li xew affaire Sonko bi xam nga affaire Sonko bi mi ngi xew mars. xam nga ba léegi amagul dara. parce que gouvernement état su ko ay affaire dalee. dafa mel ni ku ñu bett rek daal lay mbéj. Hmm. donc il faut que l'état se ressaisisse. temps boobu après ñun ci la ñuy dem. donc dans les sept à mois la balaa état bi ressaisir. Euh, fekk na ñun après ñun on est parti donc deuxième enseignement bu ñu ko tiré mm-hmm. mooy l'impunité mooy am na ñoo xam ne comme ñu gañe nañu dañu yaakaar ne ñoom comme bokkuma ci ñoom ak ñun ñi bokkuñ ci ñoom ñi yàqal affaire bu warta am suite. waaye est-ce que nag du looloo tax nag euh, dirigeant yi war a fexe ñu am une justice indépendante et une justice forte nga xam ne nekk ci nguur ak ñàkk nekk ci nguur a yem. ku ñu lor dañ lay mun a àttee. ci loolu loolu loolu vraiment mooy deuxième bi. donc war nañu en conséquence ñu am une justice te état itam ah ñu xam ne justice moom ñëpp la fi war a nekkal. te organisation des droits de l'homme yi aussi li ma si ñaaw téef gi gi li si ñaaw ñaawul mooy da ngay dégg ñoom rajo kii da ngay dégg ñoom Amnesty International ñu naan diw def nañ ko nanga waaw xanaa Farba moom moom bokkul ak ñoom donc warta am citoyen yëpp devant la loi même su fekkee ne ñoom far ba seen noonu la. parce que jàppoon naa ne politique politicienne dañuy politique rek te loolu moo feeñ ba léegi moo tax ñoom kenn déggoo ci mu ne lakk nañ ay alali jàmbur yi lakk nañ alali ñii ah léegi kon léegi nañu nañ nañ def réparation parce que démocratie kenn mënta bañ mu am ay yàq mu am ay leneen ak leneen mm. mais dafa am réparation en démocratie c'est-à-dire démocratie dafa am pour poursuite dafa am sanction dafa am ay préjudice subi ak réparation des préjudices donc ñoom troisième enseignement mooy amul réparation te loolu itam dafay entraver démocratie dafa waroon mu am réparation amul donc te loolu moo tax ma ne man duma dem ci li nga xam ne moom mooy bañ ko noon doon commémorer wala bañ ko doon feetu parce que ñaar yëf yow mënoo dem ñi nga xam ne ñoom ñoo la ñooy say bureau ñoo la yàqaloon ñoo lakk affaire bi ñoo arrêté démocratie te yow ngay démocrate même soo àndee ñoom nga wañeeku yaa ñoom ngeen di toog ah su ngeen toogee eh, ngeen di fàttaliku démb bala fàttaliku ba doon neex li yoon wax ak li ñu xam ci yeneen réew yi dañu def réconciliation des cœurs. su fekkoon ñi ñi gagné président Macky ak ñi mu àndal ak waa Benno yooyu yëpp nee nañu ah ñun kat y a dix ans. Mm-hmm. dix ans boobu am na ñu doon xeexal ñu doon xeexal am na si ñëw fekk si ñu ñooñu am na lu ñu loo xam ne yàqule nañ ko. donc bala ñoo war a xalaat di feetu wala ñuy commémorer nañu seet quel est le qui qu'ils ont subi pour ñun ñu ñëw au pouvoir ñu réparer préjudice bi su ko defee soo lëggee suñu ne Farba Senghor ñëwal toog damay ñëw ak toog ak ñoom su ko defee ñu xam ne lawoon ca démb li tax ñu fàtte ko mooy dañoo réparer li ñu ma def. mais su loolu amul nga ñëw toog fa amul sens. kon yow su la déggee ba léegi loolu mi ngi la naqari. mais daf may naqari pour toujours parce que c'est l'impunité. man je suis un citoyen comme tout le monde ah, ñu jël sama alal yàq ko ci maali foro ña ko yàqaloon yaa ngi ñoom ngeen di toog di gisante tous les jours ñu ñëw ne ñu ngi feetu loolu du yoon ñu koy commémorer bala moo neex day am réconciliation des cœurs Afrique du Sud amoon na apartheid gis nga ba toit bi li ñu def noir yi mais quand bañ demee à un moment dañuy taxaw ñu ne nit ñi kat nañu nañu xool lañ defoon démb ndax lañ koy réparer pour ñu déparal sur de nouvelles bases droit de l'homme euh, de l'homme yooyu ngay wax ak euh, activistes yeeg ñëpp yow saa yoo waxee lii ñoom lañ ciy teg mooy euh, yow tamit joxoon ñoon nañ la baaraamu tuuma ci journal 24 heures ak ay laas ak yooyu te boobu tamit nee ñu amul amul justice amul réparation c'est pas vrai am na réparation parce que man bañ ma ko joxoñee du man j'ai été convoqué par le procureur il y procès dans le procès ñoom xam nañu ne ñañu jàpp ak sama nit ñi amuñu woon benn lien. mais dañoo jël benn lien def ko si pour mën leen soral mais au moins au moins il y un procès est-ce que mën ngaa dégg le projet du procès du 23 juin te procès du 23 juin man maa la ko dana am. Hmm. je suis certain gis nga suñu def réparation man maa la ko waxal chaque fois ma di ko wax procès du 23 juin dana am et tous ils vont payer. parce ah que sama àq kenn du ko lekk mu dem. mu non mun du du niil. fan nga teg ne procès 23 juin dafay am yow da nga xalaat. ubbi benn procédure wala. yàlla damaa xamul rek mais am. d'accord sama alal moom ku ko sama àq moom ku ko lekk moom moom yàlla dana ko fay. damaa xamul nii lay demee wala nii. Hmm. mais procès du 23 juin si nga ko réparé wul c'est inévitable xam nga maa ngi koy wax depuis depuis 10 ans. depuis 10 ans maa ngi koy wax nit ñi bàyyiwuñ ci xel mais c'est inévitable li ma waxoon ci Karim itam rek xam waxoon naa sama àq kenn du ko yóbbu dem. ba mu waxoon ci Karim non Karim dama waxoon ne. ni mu ma génnee ci ci ci ci ci bi hmm. noonu lay seppee loxoom ci yëpp ba faaw ah loolu yow déggoon nga ko non loolu déggoon ko wax naa ko mille fois wax naa ko mille fois c'est valable man ma ànd naa Karim entre parenthèse fi mu ne Karim dafa seppi loxoom ci yëf yi ah est gis nga ko anam ah nee mi ngi doxal depuis ah, Doha ok c'est bon Doha c'est bon mi ngi foofu baax na mi ngi foofu baax na c'est très bien est-ce que foofu mooy senegal ah. ah waaw baax na li ci kanam raw li bët léegi ñu ñëwaat ci 23 juin kon tey yow yaa ngi xaar ba léegi ñu def réparation. réparation bu ci xam dañu ko def ko réparer moi ma de. suñ ko réparé wul bi nga rejoindre majorité par exemple mosoo ci wax ak président Macky Sall. bu ko ñu réparé xanaa ko man sama kër dafa lakk yooyu yëpp je l'ai dit <laughs> waaye xam nga affaire état ak ni muy doxee yooyu man euh, ñoom ñoo xam ni muy doxee man daal li ma xam moom mooy ànd naa ak ñoom. mais mënu ma loolu. waaye léegi moom bi nga ko waxee jéemu si dara deful dara. xaw ma lu mu ci jéem mais man xam nga li ma intéressé ce qui est concret. lu mu la tontu ba nga ko waxee loolu. dama ne ma mooy concrètement. Hmm. amagul résultat. on n'a jamais poursuivi ni sanctionné euh, ñi nga xam ne ñoo def jéyee ji il n'y a pas de réparation. kenn dàmpu la ci. amul réparation amul indemnisation amul dara je te le dis. ah loolu man loolu laa mën a jàpp. voilà ci affaire boobu te dama la wax ne la li bon ci 23 juin moom mooy am ni léegi. parce que sénégalais yi dañu jàpp ne dañoo war a xeex indi violence pour jëlee si ñi fi nekk pour ñeneen ñëw te loolu même su réussir woon su ëllëgee keneen ku fi ñëw ñooñu dañuy jàpp ne c'est le même processus qui doit continuer loolu moo tax loolu dañu war a taxaw ñu toog ñu effacer au lieu feetu le 23 juin ñu effacer le 23 juin fexe ba nit ñi loolu ñu ne ah stop def nañ ko 23 juin jël ko. léegi affaire baa ngi kon ne gis nañ li fi xew léegi. biñ biñ jiiñee ah, Sonko yekkataan bi. Eh, ay nit dee fii foofu ci yooyu. 14 eh, morts ci combat mortel boobu mu woote woon ak yooyu. Eh, parce que tout simplement ñoom dañu xox dañu xam ne la arrêté woon 23 juin loolu la ñu war a def pour arrêter lii nga xam ne mooy problème privé boo xam ne un homme politique am na ko ak benn citoyenne. c'est-à-dire que léegi bàyyi nañu la nga xam ne ñaari politiciens yi doon xeex mais dañu transposer problème bi entre benn citoyen a ah, nga xam ne dafa apolitique ak benn homme politique. parce que dañoo gis loxo nguur si ginaaw yëf yi. non xam nga loolu say Sonko waxoon na fi ne bàyyi leen def seen tooxu doona ba pare ñëw naan dañ maa complot loolu dafa yomb Sonko moo ko waxoon fii noonu bu loolu loolu du lay donc ñoom Sonko amuñu lay dañ koo woo ak lu mën a demee dafa waroon dem am na ay njaboot am na ay jabar am na ay doom am na waa kër am na ay parti daa waroon dem mu toog mu dem tribunal mu setal boppam ba mu set parce que lu ko mooy affaire bi daf koy topp ba ba faaw te tundu kenn warte jël loo xam ne problème boo xam ne yow da ko séq ak nit mu ne la mooy jiiñ la da nga yàq daan da ma nangam da toog fañ la ko waxee nga réglé ko soo sene at monde bi lu fi dul réglé amut nga réglé la ngay regle après nga xam ne yéen ñaar la nga dem mu jeex mais doo jóg ngay jaay leneen dem ba affaire bi topp la ngay wër naan euh, man tooxi doono bii ma ma def ah dañ may kii nu mu euh, dañ maa complot naka la ñuy complot nit ci affaire yooyu di la jël di la yóbbu di dugal ci affaire loolu mun ta nekk. Hmm. su fa demutoon euh, loolu xewutoon kenn du ko complot mais li ma ci bëgg tiire mooy violence baaxul nañu bàyyi violence. violence su fekkee moom la ñu bëggee régler les problèmes politique Sénégal day mel ni suba comme république centrafricaine nga xam ne gars yi ñuy xeexoo anarchie moom moo fay nekk te Sénégal est menacé par les djihadistes ne xam nga euh, la France vient de se retirer de l' opération Barkhane France bi dafay jógee mm. déjà déjà ñëpp xam nañ ne djihadistes yi ak ñooñu ñu ngi fi au portes du Sénégal donc su fekkee ne dem nañu euh, Mali trois deux deux tiers du Mali son entre les mains de ces gens donc ay ñoo xam ne samba boy ñoo xam ne ñoo ko yore donc suñu moytuwul gars yi dañuy ñëw dugg fii donc Sénégal am na d'abord menace djihadiste bi am na menace démocratique anti démocratique interne parce que le fait que nit ñu yaakaar ne lu ñu war a régler dañ ko war a par la par violence ah loolu suñ moytuwul ñaari fee yooyu mën na dem ba mu dugal Sénégal foo xam ne Sénégal buggu fa yegg. kon tey yow loi bi ñuy votelu ci àjjuma ji mu coow lool. Euh, d' accord nga ci jàpp nga ne xam nga tax ma d' accord ci. dama yaakaar ne loi bi nga Abdoulaye dafa autorisé woon ba la marche la en deux mille deux mille onze. gars yi ñëw romb manifestation pacifique def ko manifestation violente ba mu am loolu ñu yàq ay alali nit ren affaire Sonko yàqtaan bi ñu ko doon jiiñ noonu ñu dem yàq alali ñi am na ñoo xam ne dañ yàq Auchan yi. dañ yàq total yi ña fa doon liggéey dañu yàq seen liggéey yaa ay jeunes yoo xam ne ñoom ñoo seen yaakaaru ay ndey ak seen yaakaar yeeg waa kër biñ déggee combat mortel ñu yaakaar war a joxe ci seen bakkan na leen jaral seen bakkan ñu dem mu jaral leen seen bakkan ils sont tous morts donc dama yaakaar ne loolu yëpp au vie de tout ça léegi ñëpp xam nañ ne c'est une menace extrêmement réelle donc gars yi yematuñ ci démocratie c'est pas une marche boo xam ne tout le monde a le droit de marcher parce que Abdoulaye Wade moo fi indi de marche mais say say say liberté dafa war a liberté nit dafa war a fu muy far a yem sa liberté warta empiété liberté jàmbur ba fekk ko yore magasin defar ko nga ñëw manifester nga lakk magasin ba nga ñëw fekk marché yi jàmbur yi comme ni ñu defoon Castor su waa Castor taxawutoon lakk nañ marché Castor ñu ñëw lakk marché marché Castor ah ak ñi nga xam ne am na ko xam ne mbuur ay avant dañ lakk ay otoom dañ lakk ay magasin est-ce que loolu démocratie la ñi nga xam ne nag ñoom leer na leen ne dafa am lu ñuy fexeel ëllëg parce que dañoo bëgg ëllëg su dara xewee ñu jóg ñu dem yàq alali nit ñi ñooñu ñoo bañ ñooñu seen bopp ñoo bañ loi bi waaye koo xam ne yow soo reeree tëdd ah ña nga xam ne dañu ne fiir kuy dox minuit yow yow sa yow nekkul ci kuy dox minuit donc ñiy bañ affaire loi bi yëpp parce que dañuy xalaat ëllëg ñu def ay manifestation contre état bi contre gouvernement bi contre les hommes politiques. mais tam état su nekkee ci lu dul yoon opposition wala société civile am nañu droit manifester. dañuy marché ci dëkk yëpp mais amul droit yàq. fii tam nag nit demande marche. du am benn raison bu ñuy teg ngir mën ko koo aaye te ko koy bañ yow est-ce que wax ne yow suñu yàqoon sa alal lakk yàlla tere sa oto wala ñu lakk sa kër yow da nga xam li nekk ci ñuy yàq alali jàmbur donc am man droit de manifester ñëpp dañ ko war a dañ ko war a d'accord waaye nga romb ko dem fekku liggéey pendant ñaar fukki at nga yàq alalam. nga gis loolu kenn du ci nga fekk encore koo xam ne dafa nekk Auchan. man maa gis benn waay bu jógee keroog ñëw na ba sama kër mu ne mbokkam la seeti woon mu ne moom ba mu wax ma en secret ne ma damaa jooy ma ne ko pourquoi mu ne parce que su ma demaan ci kër gi damay fekk kër gi yëpp dara du fa manqué mais bi ma demee mu ne fa am ñeemantal boo xam ne moo dafa toog moom si boppam mu jooy waaye lan kan ma waral loolu est ce que fekkoon ne Sonko woote waroon combat mortel gars yi dem xeex foofu est-ce que kooku alalam kon léegi kon ñoo kër googu dana dem ci situation boobu ana ñi nga xam ne seen doom lañ yaakaaroon muy liggéey di leen jox yor seen ay waa kër Sonko ne na leen jëral seen bakkan ñu dem mu jëral leen seen bakkan ñoo ngi dee ci est-ce que ñoo ngi seen waajur yi kan moo leen taxaw c'est ça le problème donc mën nañu manifester waaye waruñoo manifestation boo xam ne dañuy woo nit ñi ne kaa leen dee wala ñu dem li lakk alali alali jàmbur yi donc ñi nga dégg ñëpp ñuy contre loi bi débordement yi di def ay association nañu ànd wala nga nekk France Italie wala nga nekk États-Unis nga dem nañ leen lakk kër ministre bi nañ lakk kër directeur bi nañ lakk kër APR bi yow loolu yaa ngi koy def yow sa yoo nekk ci de ñoom ñu ñëw lakk këram moom ëllëg comme man après mu nekk perte et profit donc loolu moo fi war a jeex loolu dañ war a am ay garde-fou yoo xam ne amul kenn koo xam ne yow da nga mën a toog à ngay lakk lu këru jàmbur wala nga nekk ci rajo yi sociaux yi kenn du la xam ngay bind sa ay këyit di sànni naan nañ leen yàqali nañ leen yàqali loolu la loi bi loolu lay xeex day xeex itam terrorisme bi parce que su fekkee ne jëluñu ay matuwaay Sénégal dafay mel ni comme Mali parce que Mali bii n'est plus n'est plus en sécurité parce que français yi leer na leen su tubaab bi demee amul kenn ku mën a téye les djihadistes donc loolu dafa laaj fagaru koo xam ne nag yow da nga yaakaar ne yaa ngi doon tunglu état bi parce que yaa ngi naan deuxième vague troisième vague ngay xalaat attaquer kë këri nit ñi ngay xalaat attaquer les biens d'autrui suñ tegee loi bi daf lay dérouter daf lay dérouter te dégg nga Barthélemy doon wax Sonko ne ko gars yi dañuy xaar septembre pour jàpp la dañu xamoon nag xam en liaison de quoi la ko la koy wax. donc gars yi loolu soo leen bàyyee ñu préparé wu ah taxaw état bi mu mënta taxaw léegi loolu anarchie lañ jëm réew mi dafay tas. est-ce que nekkoon di dëggal ne loi bi dafa am ñu mu visé notamment Ousmane Sonko. état bi loi bi dafa visé ñu mel ni ñu def loolu cest ñoo xam ne dañuy tunglu état bi pour xeex contre état bi loi bi dafa war a jël matukaayam xam nga loi dañu la Ablaye état bi dañu ko bett nee naa la Ablaye bi nga ma laajee Ablaye ko ci diggante ma ne la état bi dañ ko bett comme dañoo bett état bi dóor coup de poing état bi di xëm ak en donc pendant six à sept mois bi muy jaata xumee ko ñu daane ko donc léegi mënta am réparation mais fii itam ils ont pris tout le temps analyser situation bi yëpp ñu xam ne su ëllëgee comme ñoom ñu ngi leen di tëkkoo deuxième troisième vague il est normal que ñu jël loo xam ne. ay matukaay yoo xam ne dañ leen di xaar pour suñ ñëwee. loolu suñ la waxee ne la loolu nekkul ci tam loolu ci la bokk lépp ci la bokk. il faut que ñu il faut ñu. te normal na c'est normal. alors ñu ñëwaat ci démb euh, yéen au lendemain du 23 juin yéen ñi nekkoon ci nguur gi naka ngeen dundee loolu bi ngeen yeewoo situation bi lan la leen def. non xam nga mi ngi mel ni rek euh, am ko am ku dee. si tu as un mort ku dee bi. Hmm. no dafa wax rek soo amee ku dee wala ku wala ku dara jot ah xam nga def un coup mais après da nga koy jël affaire bi di wàcc ndànk ndànk affaire bi di disparaitre ak yooyu yëpp. loolu loolu la demee. parce que ngeen xëyee le 24 juin. da ngeen a daje wala ban réaction ngeen am lan ngeen njëkk a posé. comme man man man man man ba ñuy daje gisuma leen. parce que même même jour bi bi affaire bi amee commencé nañu daje man jour boobu man maa ngi woon hôtel de euh, hôtel kii hôtel hôtel ban hôtel bi hôtel bi nekk à côté de la place de l'Indépendance man foofu laa demoon foofu la ñu ma yóbbu man mois bu foofu la ñu donc deux premiers jours yi. exactement bi gars yi wax man xaw ma lu ñu doon wax. mais après yow ak sa njaboot yëpp fa ngeen demoon. waaw man foofu lañ nekkoon ñun ñëpp bon donc voilà ce qui s'est passé donc xaw exactement ci tàng-tàng bi eh, eh, lan moo xew mais xam naa ne c'est c'est comme l'après deuil quoi su fekkee ne deuil am na ce qui ce qui donc loolu xam nga ñu xëy ñu lakk sa ay alal yëpp lakk sa ay bagages. ah nga demaat a yàq woon wala am na yu yu lépp lañ lakk presque dañoo génne yenn yi lakk ko lekk yi sax dañ ko lekk foofu rab yi nekkoon ci biir kër ga. <laughs> Ah, ay lapin ki ay naata ki ay affaire yi ay euh, oa ki ay marabo ki les oiseaux là yooyu yëpp gars leen jël ñii di rendi fii hmm? a ñuy gis gars yi di lekk fii ginaar yi fii ci biir kër gi ak tout ça. Ah yooyu la waaw waay yaa tout ça. yéen yéen a ngi ci biir kër gi. man xam nga yàlla dafa def damaa bëggoon a dem rëbbi maa ngi woon ak 75 bal. Hmm. xam nga maa ngi woon ak juróom-ñaar fukki ball non téeméer non 150 bal laa jëndoon. nga yoroon fetel. dama am fetel waaw ak arme fetelu kii mhm. fusil laa yore damay dem di rëbb ay naat ak yooyu donc je m'apprêtais après pour week boobu ma dem ma jënd ko pare denc ko donc man moo tax bi gaa yi ñëwee xam man njëkkoon naa dem buntu assemblée bu ma dem buntu assemblée y avait une bousculade euh, commissaire bi commissaire Lam bëggoon a daanu sax man maa ko téye man hmm. maa ko parce que nga ne foofu su su su woon gars yi dañuy ñëw dal suñu dal suñu kaw ñun ñëpp mais dafa fakkatalu ci rebooru rond point assemblée bi man maa am sans froid ma téyewaat ko pour ma ñu donc après ma dugg assemblée demaat bi ma demaate ba mu toog fa ay une heure temps may génnaat ñëwaat sama kër tranquillement léegi baaragay ñoom UJTL ñoom itam ñu riiree jógee fële ci gannaaw gannaaw assemblée ànd ak ñoom galotaal ak ñooñu bi ñu ñëwee ba son buntu kër ñu dajee fa ak waa euh, kii bi euh, gaajoo yi ministre Gadio ak ñitam yi gars yi xeex foofu xeex foofu ñu dàq ñoom Baara Gaye ñoom Baara Gaye ñu bousculer buntu kër gi euh, policier bi comme xam na leen mu ubbil leen ñu dugg ci biir bi ñu duggee gars yi fekk leen fi Baara Gaye dafa ci biir douche bi lañ ko tëj. Ah waaw Baara dafa daw dugg ci biir douche bi tëj ko pour bañ gaa yi génne ko. moom ak ñoom Gallo ñu daw ñëw dugg après euh, am na sax ñoom koo xam ne bunt bi dafa xotti tànkam. Hmm. deret gi ko foofu. gars yaa ko sax dañ koo tiire comme maa ngi woon ci biir nag man maa leen téye ba 14 heures pendant plus de 2 heures temps ma bañ gars yi engagé kër gi ma dugal fete fetel bi ci fenêtre bi léeg-léeg ma door ay bal ci kaw. door ay 3 4 4 bal. ah oui bi tëf yi daw dem. waa gars taxaw ñu toogaat ay 30 minutes. ñu ñëwaat gars yi defaat assaut may dóoraat ay bal di door di dóor ci kaw. tir en rek nga doon def. ci kaw laa ko doon dóor ci garab gi ci kaw. mais ñoom suñu déggee tël. dañuy daw ñëpp dañuy daw yaakaar ne dañ leen dañ leen dóor bali gars daw. ma koy def pendant 4 heures hmm? boobu ana police ak ñoom kii. force de l'ordre ñëwuñu police ñëw léegi nag Ablaye Wade sax ca biir saal dañ ko fekk ne farbaree na ñeenti nit. police gars def rapport police ay fiches ñu andi ko ñu ne ñu ne j'ai moo ko wax gars yi moo ko wax ci biir kii bi. Ah ñu naan la après ñu naan ne 2 parce que deretu ki àndoon ak ak baara ak gay dafa xotteeku bu metti del gi tuuru foofu yëpp gars yi nag yaakaar ne man damaa rey nit après ñu ne Farba rey nag quatre personnes kan moo joxe xibaar boobu xawma non je crois que ay police peut-être dañoo def ay fiche fiche daal la ñu indil Abdoulaye Wade ci biir ci biir conseil des ministres man waa ñi nekkoon conseil bi ñoo ma ko wax ala de lire ko gars yi de xam nga yëpp dañu bëgg a tiital Abdoulaye Wade xam naa après bëgg aussi alors ne ba dafa def provocation. est-ce que du loolu tax mu mu mu reculer parce que boobu dara leeragul woon. waaw loolu moom am na fa moom ba pare gars yi dañu woon ne Farba dafa def provocation man nan laay provoqué. man sa biir kër. non sax la manifestation était autorisée donc man damaa waroon dem mais comme ñoom demuñu. il faut ñu justifier ne Farba dafa waru foon taxaw pourquoi waru fa taxaw te dañuy wax ne ñëpp nañu dem Abdoulaye Wade joxe ordre d'abord xam nga man daa waroon dem. ba pare maa yoroo war yoroon chargé organisation propagande ak mobilisation ak affaire yi ensuite UJTL ñoom Bara ñoo loolu ñoo daw dugg sama kër problème bi yëpp ah, kon problème yëpp ñoom Bara Gaye lu ci xew ñoom Bara ñoo ko jokkale ñoom Bara ñoo dugg foofu kon dañ doon jàppante fële ñoom ñu daw ñëw sa kër dañu génne woon xaw ma ci gannaaw euh, kii ba IDEP xam nu mu tudd ñu ñëw pour ñëw sama buntu kër taxaw na taxaw côté boobu hmm. parce que côté boobu ñoom tam ñoo ko moomoon mais bi ñëwee dañoo fekk nit ki occupé ko ñu xeex. d'accord après bi ñu xeexee nag gars yi ëpp leen doole. ñu daw gars yi songu leen. ñu dugg sama biir kër loolu moo indi xeex bi mais ñu bëri dañuy wax loo xam ne xamuñu ko. kon yow gars yi ciblé wuñ la woon. ñëwuñ woon pour taal su fekkoon ne ñoom dugguñu foofu. kon gars yi duñ fa dugg. mais gars yi parce que man génnoon naa dem ci biir foofu pendant deux heures de kenn songu la kenn songu ma. man benn kafe ndox bu ndoxu café lañ ma tuur ci sama kanam. Hmm. nox ko fa la mu ñu tuur ma wër de. maa lakk ko suur. xalal xam nga yow c'est un miracle xam gars yi xam nga il n'est pas donné à quelqu'un nga dugg ci mbooloo moo xam ne hostile des milliers de personnes nga jaar ci man ak sama garde ñoo jaar sama biir ak sama doom mi ay ànd ñoon su ko ñoo àndoon ñu jaar dugg ci biir. dem maa dem ba yegg jaar traversé romb leen gaa yi yëpp ñuy jël ay xeer ko ko sànni noonu amul dara lu ma laal lu may café bu ma bu ma benn waaye tuur xam nga c'est ça c'est c'est le far émul ak émul ak émul ak ñoom <laughs> lan moo waral dëgg-dëgg keroog président Wade retirer projet bi. no peut parce que y avait il y avait une violence une d'abord président li ko doon gënoon a metti mooy ñu dégg ñu ne ñu ngi lakk assemblée bi. affaire boobu moom moo ko gënoon a parce que vraiment Sénégal bugg ko présenter comme un pays boo xam ne alors c'est de l'anarchie où l'on brûle l'assemblée parce que boo njëkkee ñëw mu ah que euh, il allait comme ça à l'assemblée xam ne loolu kon ñu gën a choqué moom man li ma njëkk a wax man mooy loolu il allait brûler comme ça à donc li ko gën a metti mooy le fait que ay ay manifestants ñëw di lakk assemblée nationale voilà loolu moom moo ko gën a metti est-ce que 23 juin boobu bi ngeen ci jógee yéen amoon ngeen yàqin na moom jeexal ngeen wala gëmul non man bi ñu bi ñu jógee 23 juin hmm. waxoon naa waxoon naa la démarche à à suivre mooy lan dama waxoon ne nañu def élection législative anticipée. mu wax ko président gars yi ñëw ñoom gars yi ñëw bañ dindi ko. yow loo parce que gars yi non li ma jublu woon mooy. ngeen natt seen bopp ñu natt suñu bopp balaa élection présidentielle yi ñëw. ndaxam dina jar dem troisième mandat am déet. non wax ñu non élection moom alaa day dem mais d' abord il fallait que wala ñu cumuler dama ne président nañu cumuler élection législative. ak élection présidentielle su ko defee kenn ku nekk il faut nga défendre. sa sa bopp fa nga dëkk. parce que xamoon naa ne gars yi li nekk seen xel. ou bien nañ def élection anticipée. express. génne na ko tiire na ko. waaw bu ma ko waxee noonu gars yi bañ dama ko génne lu ci express. express def ko génne ko def ko à une. donc mais ñu bañ a def li ma leen wax man xamoon naa ne Abdoulaye su demee moom dong su njëkkee dem moom dong gars yi dañ koy bàyyi ci biir man xamoon naa ko. moo tax i gars yi liggéeyuñu bi demee présidentielle. non commencé à s'affoler. parce que ak ak événement yi commencé am noonu kenn ku nekk yaa ngi doon seet léegi xalaat nooy def donc xam nañu ne ah euh, man gëmu woon ne dañ défendre président Blade damaa bëggoon ñu ñu mettre ñëpp dans un même sac ñu défendre kenn ku nekk dem défendre sa bopp. ndax ku ne liggéey ndax ku ne yaay di di candidat député nga. Mm. da nga de xanaa nga dem def campagne pour sa candidat pour défendre sa bopp te xanaa su défendre da nga défendre en temps président soo gisee express mi ngi ci. parce que laa doon farba yow la nga wuteeg sama gars yi tu loin. loolu moo tax doo jubóog sama gars yi te c'est vrai parce que suñ defoon loolu amaana dana atténuer affaire bi mais ñu bàyyi Abdoulaye Wade rek mu dem loolu man xamoon naa ne c'est un danger pour le pouvoir man xamoon naa ko man. d'accord waaw. kon yow ñàkk nguur gi bettu la après 23 juin. non man même avant le 23 juin keroog ba ma daanoo ba ma daanoo ñu wàcce ma. 2008 hmm. laa ñëw ñoo madame Mbaye ak euh, président ñaf président colonel bi yëpp ma ñëw leen on va perdre le ah yow sa rempart may leen rempart bi kan la man la man man maa doon défendre pouvoir bi ma def na Abdoulaye Wade kon rempart bi suñ ko dindee fii dañuy dem directement ci Abdoulaye Wade laaj leen soo leen ko laajoon dañ leen farba nee nañu ñàkk pouvoir bi jeex na ko comme moom génn na ci euh, gouvernement bi dañuy dañuy ñàkk pouvoir bi boobu laa leen ko wax. Hmm. waaw ah oui je savais ah yow soo dikkee bunt bi soo ko ubbee mu ne ŋàpp ku mu neex nga dugg. ku ñëw dugg ah c'est ça. d'accord alors ñu ñëw nag ci euh, enseignement sànq jot nga ci tiire ñaar mais yow bi nga ci génnee 23 juin lan nga jàpp ci wàllu politique surtout ak erreur yoo xam ne peut-être doxal ngeen ko te waru leen ko woon doxal mu indi loolu yëpp. non xam nga li ma jàpp mooy kii gañ gouverne ku gañee yaay gouverne yow miy gouverne yaay seet lan ngay def mais dañ laa war a bàyyi ba moment bi ñu war bi la war a sanctionné jot. mooy les élections kenn war laa sanctionner par la violence donc li ma jàpp mooy ak lu Ablaye Wade mënoon def il a le droit et le pouvoir de le faire ak sa majorité tant qu'il est au pouvoir. mais est-ce que tamit waroo si tirer enseignement wu que ni demoon ngeen bay ñàkk wala yaakaaroon ne dem ngeen bay ñàkk ngeen di xool yeneen i yoon yoo xam ne ndax car bloquant bi su jàlloon moom yaakaaruñ ngeen jug fi 25 pour cent jafewul woon jamono jooju. ci ci président Wade ak lu mën a jël. loolu jarut. ñuy violenter nit ñi ah di egg di egg fenn fi parce que loolu démocratie waxu ko démocratie dafa ne on gouverne euh, par les élections et on en sort par les élections loolu mooy démocratie mm. amul benn démocratie boo xam ne dañ la wax leen da ngeen war a xeex da ngeen war a reyante soo demee dans beaucoup de pays ay am na ay lois yoo xam ne dañ koo jël même euh, Trump jël na ay loi ak décisions yu bëri les Américains mënoon nañ ko daane par la violence. mais xam nga foofu fii du benn. fii suñu majorité yi da ngay am da ngay am euh, majorité mécanique. loo indi mu jàll comme lettre à la poste. xam nga la majorité mécanique existe dans tous les pays soo demee France c' est le que ku gañe rek. yaa yore majorité kon yow miy gouverner la nga bëgg jàll day jàll. mais dans les dans tous les pays dañ lay xaar ba élection ñëw ñu ne yow kat defoon nga lii defoon nga lii defoon nga lii. Ah, kon dañ lay sanctionné mais waruñu laa sanctionné par la violence. c'est-à-dire accéder au pouvoir moom dara euh, justifié mais soo gisee Sénégal nag li ko yàq mooy loolu mooy le 23 juin c'est la violence moo stoppé la démocratie violence boobu ci la Sénégalais yi ñii di opposé wu ñëpp ay activistes ak ñeneen ak ñeneen ils disent que voilà comme violence moo fi jëloon Ablaye Wade ki itam nañ ko fi jëlee par la violence moo tax violence baaxul ku violence fal violence mën na la folli c'est-à-dire que dañu war a taxaw Sénégal ñu ne nañu arrêté léegi nañu toog ñu waxtaan am na lu passé plus jamais ça loolu wartu fee am donc lu comme wartu fee am nag nañu fexe ba réconcilier kër yi comme ni ma la waxoon su ko defee ñu mën a xam suba naka la ñuy mën a yoree réew mi ba nga xam ne du ñu yegg ci violence parce que violence soo xoolee li xew république centrafricaine où il n'y a plus de gouvernement amatul état amatul dara nga war a xam ne loolu baaxul. d'accord. dégg nañ fi tamit ay werante ci fan yi ñu génn bi bi ñuy commémorer 23 juin bi euh, ci euh, Serigne Mbacké Ndiaye accusé Aliou Sow ne IDCAR bloquant bi ci moom la jógee Souleymane ne Ndiaye juge fee weddi ko xalaat bi 23 juin loola indi coow li ci kan la jógee wala fan la jógee. li lim ñu enseigné. Abdoulaye nee na président de la République. il décide par lui-même et pour lui-même. à moom su moom mooy décide soo amoon junney conseiller ak luñ ko mën di wax moom la mu jàpp moom mooy wéy donc président soo ko jox sa xalaat da nga koy jox su ko neexee mu jël su ko naqaree mu bàyyi waroo ko laaj sax ne ko président xalaat bi ma la waxoon démb est-ce que jël nga ko wala jëloo ko alaa ne nga ko war a jox rek da war a li nga jox ko moom mu seet parce que yow soo yaakaar ne président yaa ko wax loolu mu def ko am na ñeneen fukki nit wala téeméer ni ñoo xam ne kenn ku nekk mën ngaa wéet président nga ne ko président defal nangam donc c' est une wax ne xalaat bi maa ko jox président ah, pour mu def koog yooyu mën nga ko def nag nga bind soo defee mën ngaa bind nga ne président bind président ne ko lii man maa ko waxoon soo légee nga génne ko su demee ba histoire nga génne ko président maa la waxoon lii kooku ak yen ak yéen su affaire ba wéyee ba jeex ba jeex mais comme ni ñu bëgg a def nii ay wax rek kenn mënu ci sukkandiku ne lii xewoon na démb wala xewoon démb maanaam crois que béy daal wéy na mbuus la xewoon démb daal paternité bi Ablaye Wade la ndax Ablaye Wade moom la ñuy élire. mais yéen waxtaanu leen ci woon avant. Ablaye Wade man la ci waxtaanal ak nit ñu bëri. mais ak kum ci man di waxtaanal c'est sa décision qui est prépondérante. donc léegi ce serait même superflu de dire que man maa ko wax nangam wala keneen a ko wax nangam pour mu def nangam la xewoon daal Ablaye Wade moo ko décidé Ablaye Wade moo ko wax Ablaye Wade moo ko moo moo ko endossé lay xew ci coulisse coulisse ya nag. loolu ku nekk da ngay wax sa xalaat rek jarul ñuy werante jarul ñuy polémiquer parce que loolu c'est une affaire qui est terminée et loolu ça n'a aucun sens actuellement parce que soo waxoon ne man maa ko wax Abdoulaye Wade tam amul sens qu'est-ce que ça va servir au pays rien et le de sa diaboliser entre ñi àndoon ak Abdoulaye Wade ma ne jaratu ko il faut regarder ci kanam dañ war a xool ci kanam bañ xool ci gannaaw àndoon ñu démb léegi tàggoo nañ kenn ku nekk yaa ngi jaar sa yoonu bopp kenn ku nekk la nga nekk na ki nekk te nga bàyyi sa moroom mu nekk ca la mu nekk je crois que loolu la mais man di wa def nangam di wa def di jiiñante amul ki solo loolu nit ñi sax da si yàgg dañuy jéppi ah mënuñu ne perte ku nekk naan si sa morom yaa tax ma perte ah ku nekk naan comme yow yaa tax ma daaru yaa ma def naa non non non ça c'est fini on l'assume tous ensemble Ablaye Wade moom moo doon jiite moom moo assumé mbir mi nañu ànd ko assumé ko ak moom mu jeex te ñu seeti leneen waaw mais jàppoo ne loolu erreur la woon erreur politique bu ngeen def yow yaa ko tàmmoon di wax en politique l'erreur se paye cash. oui lan mooy erreur. Euh, car bloquant bi ngeen bëggoon a euh, def. dama la ne dama la wax ne la euh, man ki sama jàpp-jàpp mooy Ablaye lu ko neexoon mu def lu ko majorité mayoon war na ko mën a def parce que loolu mooy démocratie. ndax constitution Sénégal dafa ne kii gañ gouverne moo ne ci constitution bi de. Hmm. opposition bi dañu war a opposé wu ñi nga xam ne ñoom ñoo gañ exercer le pouvoir. exercer le pouvoir nag mooy lan mooy ngay décider ngay mooy d'abord ngay euh, am vision di orienter politique gouvernementale bi après ngay doxal politique nga koy ngay exécuter politique gouvernementale bi di nommer à tous les postes militaires et civils noonu la ñuy gouverner kooku ci temps bi nga xam ne yaa yore mandat bi yow ki sa bopp loolu yow yaa koy def mais euh, loolu prérogative loi bi la loo man di jël kooku yow sanction ba dañoo war a xaar ba élection ñëwaat mais kenn wul laa par la force wala par la violence wala par les armes loolu c'est antidémocratique d'accord waaw commémoration dix euh, ans wu 23 juin euh, activistes yeeg opposition nee nañu soo gisee ñu def ko donte yow ak ñeneen àndu leen ci mooy ne li fi ne woon euh, ba ñuy xeex 23 juin 2011 moo fi nekk ba léegi ànd nga ci. ah xam nga c'est l'esprit l'esprit 23 juin. ba léegi moo fi nekk xam ban esprit la mooy nañu xeex ñii fi nekk par la violence ànd ak ñoom xeex leen ba lépp lu ñu sëmb politique ñu arrêté ko loolu la loolu moo fi xew ak ñoom sonko yeeg yi ngi fa def gars yi naan nañu dem lakk kër yeeg nañu lakk kër yi ki yeeg pour indi terreur pour indi pour terroriser sénégalais yi moo tax sax sensu terrorisme dans la loi am sens parce que terroriser quelqu'un mooy xiixaan ko xiixaan ko ba nga xam ne dootu ñemee def li mu bëggoon def dootu ñemee génn dootu ñemee def dara donc ñoom dañuy xiixaan ay xiixaankat lañu loi bi daf leen war a topp ñu jàpp leen parce que dañuy xiixaan réew mi mooy ngay terroriser nit jàpp naa ne terrorisme kenn waru koo def kenn nañu war a bàyyi nit ñi ñu dem ak seen xalaat ñu dem ak démocratie kenn ku nekk loo bëgg a def nga def ko mais mënoo nga jël ci rajo yi télévision yi nañ leen lakk këru diw nañ leen def nangam diw et puis yoo xam ne ay ay ay fen la ñuy jël bu ko def dëgg waxuñu fii ne soleil lakk na ba jeex gisoo ko gis nga ko génn nañu image ñu ne soleil ngi lakk génn nañu image ñu ne kii nu tudd ñu ne deuxième palais Popenguine ba ba lakk na même barki démb gis nga suñu génne fii ne këru Macky bi nekk Fuuta lakk na rien c'est-à-dire que ça c'est du terrorisme c'est-à-dire tu imposes aux Sénégalais une situation de terreur boo xam ne kenn dootu ñemee def li ngay def loolu yëpp dañ ko war a sanctionné parce que loolu mënta continuer. waaw keroog weeru mars de gis nañ fi ñoo xam ne sax da leen di woo duñ nangoo ñëw. duñ na dañuy ñeme <laughs> ah, dañuy ñeme. Ah, de yàlla def na man ah, affaire bi yëpp man doon naa wax sénégalais yi dégg nañ ma de toute façon tous les sénégalais man dégg nañ man parce que man je ne je ne conçois pas nga xam ne ñoo fi ñëw démb ak gars ay Samba Boye gars yi a ci mbedd mi gars yooyu yëpp occupé yëpp ñoom ñuy wax ñu ne yéen nekkoon démb nga xam ne teg woon ngeen fi dara yéen bu leen waxati. d'accord léegi yow nangu nangu nangu woo ne kon euh, lañ daan xeex démb ba léegi moo fi nekk nee nañu yëf yi xam nga lu ma nangu. waaw mooy nañ doon xeexee démb esprit ba léegi moo fi nekk. ku fi nekk dañ laa war a mais taxoon ñuy xeex kon moo moo fi jógewul. non c'est-à-dire monde bi yëpp dans tous les pays du monde lu jar nga xeex toujours mu am waaye ni dafay am retenu dans tous les pays du monde pouvoir bi day def loo xam ne day jar nga xeex mais dañuy laaj retenu c'est-à-dire que ku Abdoulaye Wade wax ne je ne marcherai jamais sur des cadavres du ma dox ci ay niw pour egg ci pouvoir loolu mooy retenu Abdoulaye Wade daan dem ba xëcc ba bu mu bëgg a dog mu arrêté taxaw parce que xam na ne bu mu gis rogee yëpp ay daanu daanu kon da koy donc kuy nekk ci réew di opposé wu toujours nga gis loo xam ne ma ne jar na nga dem reyante ji mais da ngay am foo war a yem da nga naan fii kat waruma ko passé loolu mooy force les grands hommes politiques la capacité de s'arrêter de ne voir leur pays seen réew ñu daanu ñu suux c'est ça le problème mais lu jar toujours xeex mi ngi fi mi ngi fi am na Mali am na Côte d'Ivoire am na France am na ci dans tous les pays. lii Macky Sall di doxalee tey jàpp nga ne yoon la. jàpp naa ne yoon la li Macky def jàpp naa ne yoon la parce que Macky moom moom la Sénégalais yi fal. il a plus de presque cinquante huit pour cent jëm kaw am na ñoom Idriss Seck ak ñeneen ak a plus de cent. Euh, donc ñi fi coow yëpp ne dépasse pas motuñu vingt pour cent mais xam nga li xew léegi soo gisoon ci koñ bi mën naa waat ci yàlla ne ñett nit suñu yuuxu woon fii ser koñ bi yëpp ay daw dootoo dégg dara. ñu jàpp ne téeméeri nit a fi yëngal ñu jàpp ne ñëpp la tey jii su amoon ku yuuxu ci koñ bi ñëppay tiit ñëppay daw seeti ko c'est ce qui se passe les quinze les moins de quinze les moins de vingt pour cent là wala quinze pour cent yooyu suñu jógee riir. c'est comme si tout le Sénégal moom moo jógoon mourir mais cela ne fait pas le ah, Sénégal kon 15% yi am nañ dama ne la seen koñ tey su fa amoon ku fa yuuxu ñëppay daw génn c'est ça l'effet c'est ça xam nga sensation ak fracas ah bokkul ak lu sedd. lu dal lu c'est ça le problème donc loolu moom du dara loolu état bi moo war a jël ay moyens yu mat ba nga xam ne ku bugg a déborder. sans discrimination sans laxisme état bi arrêté loolu parce que l'état est garant de la sécurité des biens et des personnes réew mi dañu war a taxaw ba nit ñi am foo xam ne waruñu ko passé kenn kenn warta passé say liberté morom loolu état war a def état bi daa wara taxaw ba du waruñu lakkati këru kenn état daa wara taxaw ba waruñu terroriser kenn état bi daa wara taxaw ba ku ñu ne da ngay dem ci yoon da ngaa war dem ci yoon mais waruñu ne da ngay dem ci yoon nga naan da ngay jaar gauche da ngay jaar droite dañ ma complot dañ ma def nangam du ma dem yoon loolu état waru ko nangu parce que état dafa war a rester fort loolu mooy mbir mi parce que suñ buggee Sénégal dañu war a respecter loolu que l' état respecte le principe ah de sa superpuissance sur tout le monde mu veiller sur les sur la sécurité des biens et des waaye droit yi tamit may nit ñi ak ñu mun a exprimer seen ay liberté ku bëgg a marche ñu may la nga marche ku bëgg a taxaw def toogaanu ñaxtu ñu may la ko parce que loolu bu amee du am raison wu ñu ndax eh. manifestation yi fi débordé yu ci bari tamit ñàkk peut-être exception au 23 juin mais ñii fi manifester ñi ñëpp ñu ci bari dañ leen a tere. léegi bu ma génnee nii benn waaye dafa ne eh, waaye faraba loo xam ci loi bi man ak lu ma ci xam ne man je suis parfaitement d'accord léegi rek bu ma dem Yoff rek. ay gars yi ab nit ñu ma kar ma taxaw foofu ñu ma waaye yow loo xam ci loi bi maanaam loi bi li ma ci xam daal koo xam ne yàquloo xeexuloo yàquloo la jàmm yaa ngi tëdd sa kër ah loi bi moom waru la jaaxal moom waru waruloo ko méttilu waaye koo xam ne da ngaa xalaat suba nga dem yàq ji réew mi moom loi bi moom moom moom loi bi dina la métti donc le droit de manifester est un droit inaliénable Abdoulaye Wade moo ko fi indi kenn ku nekk war nga mën a manifester mën nañu groupe wootante dox ah tëral benn yoon wane ni ñu nit ñi ñun la ñu àndal. loolu c'est tout à fait. acceptable waaye saa ñu bañal leen. waaye loolu lañ lay wax ne nag. moo moo war a jóg ci réew mi xam nga xam nga l'état état moo xam moo état mooy apprécier c'est-à-dire par l'intermédiaire du préfet mën na apprécier euh, police mën na apprécier c'est policier bi taxaw ci mbedd mi ah yore circulation moom mooy apprécier à quel moment la war a arrêter oto yi. la oto yii jàll ci la kii war a jaar fii kër waru fee jàll loolu moo taxoon police bi mu ci rond point Mermoz bi Sonko ñëw police estimé ne suñu jaaree buntu université mën na am ay débordement mën na am ay reyante on sait jamais ah te on a vu que après on a trouvé ay jaasi mhm. ak ay yet ak ay armes au niveau de l'université donc kon Sonko warta mën a jaar foofu donc ça c'est le policier lui-même qui l'apprécie donc loolu moo tax ñi nga xam ne dañoo xam droit dañ ne Sonko daa waroon a jaar fañ ko jaarloo corrige ba mu dem directement dem fa muy dem. te ku ñu tere manifestation yi noonu nga ko war a nangoo. donc ku ñu tere manifestation euh, war nga ko mën a war nga ko mën a nangu war nga mën a manifester mais mën nga manifester sans violence cest li bon ci manifestation mooy ngay manifester ne da ngaa war a yàq alali jàmbur am na koo den la kër mu am alalam bëgg ko lool. wala mu waroon a xëy liggéey dépense am mu ngi ko yaakaar ci liggéey bu mu liggéey kooku yaakaar naa ne yow waruloo nga dem nga jaar fa nga lakk ay bagaasam wala nga yàq ay bagaasam wala sax nga tere koo liggéey parce que loolu loolu ko def àq la parce que am na ñoo xam ne suñu xëyul liggéey du ñu lekk du ñu naan donc ñoom dañuy yoral àq doome aadama yi te dañuy yaakaar nit ñi dañuy ànd ak yéen mais ñi nga xam ne en vérité ñoom lañu ñuy yàq seen àll yi ñoom mënuñu ànd ci loolu parce que kenn na ñu yàq saral te suñu la yàqalee da ngay perte sa day dem ci maay foro te loolu moo dul yoon. jërëjëf monsieur le ministre Farba Senghor amoon nañu mbégte dalal la ci émission démb ak tey fàttaliku 23 juin 10 ans ginnaaw loolu nga bokkoon ci ñu ci gën a loru ndax sa kër keroog ca euh, manifestation ya dañu ko lakk nga yàqu ci li ci woon lu bari bokkoon it ci nguur gi euh, placé lool pour mun ñu wax keroog li xewoon ak na ngeen ko dundee ñu ngi lay gërëm bu baax. waaw maa lay gërëm di la sant di gërëm di gërëm Sénégalais yi man daal fi may tëjee mooy. ñëpp ku bugg a manifester war ngaa mën a manifester mais dafa am fu mu yem nañu fexe ba bu kenn déborder ba yàq alali jàmbur wala ngay rey ay doomu aadama wala ngay yàqal nit ki ci li nga xam ne moom la yaakaar wala ay doomam ngay fexe ba ñi ko doon jox muy lekk ëllëg nga yóbbu leen bar sax loolu yëpp nañ ko moytu manifestation daal baax na waaye dafa am fu ñu war a dafa ñu am retenu ñi nga xam ne ñooy homme politique yi seen ay nit dañ war a téye am fu ñu war a yem am foo xam ne kenn waru ko dépassé maa ngi di gërëm bu baax vraiment di leen balu yow itam di la gërëm ci sa liggéey di la ñaanal yàlla mm-hmm. merci